Monsieur le ministre, un jeune urbanisme comme vous affirme, je le cite, Je revendique une conception de l'urbanisme qui ne soit pas uniquement un champ technique, mais avant tout un soin du vivre ensemble, donc fondamentalement politique au sens noble du terme. Fin de citation. Monsieur le ministre, vous pouvez faire votre cette affirmation si on tient compte des projets de votre ministère. Projet zéro déchet, zéro bidonville, lutte contre les encombrements, 100 000 logements, etc. Monsieur le ministre, soyez félicité pour cette conception humaniste de l'urbanisme. Monsieur le ministre, mon jeune collègue qui vient de descendre, je vais recevoir. Monsieur le ministre Recevoir que pour lui expliquer le programme des 100 000 logements. parce que dafa nek programme bo xamné da ngeen ko négocier ba mu lèr naa ñi ñëpp dugg ci biir mécanicien yoy ñuy wax maçon yoy ñuy wax ñom ñëpp a ngi ci biir té avec les banques yaakaar naa négocier ngeen ba nga xamné taux biñ koy joxé nit ñi du nek taux bo xamné dina leen sonal wala dina leen monsieur le ministre parlant des 100 000 logements je voudrais vous demander une discrimination positive pour les femmes parce que monsieur le ministre ci fay au cas où nous aussi souvent donc monsieur le ministre discrimination positive pour les femmes pour l'accès aux 100 000 logements su le passé monsieur le ministre dégg gis naa ci biir rapport bi ngay wax programme de modernisation des marchés et vous avez cité le marché de Sandaga monsieur le ministre le marché de Kaulak mérite d'être modernisé marché Kaolack président de la république digon na ko monsieur le ministre ñu ngi la koy fatali, di la ko denk nga taxaw ñi taxaw si pour que Kaulak ñu am un marché moderne Benen bi ci monsieur le ministre dans le cadre de la modernisation des cités religieuses, la grande mosquée de Léona Kanen, qui menace ruine. Et ça fait deux ans, nous sommes Monsieur le ministre, aussi, pour nous défarat ko ba nit ñi mën dugg ci biir ci comme il faut fi may jéxalé monsieur le ministre dañu fi amone ben programme bu ñu faire ñu rafetlu ko trop ñu ko la promenade des quoi. promenade des quoi monsieur le ministre fo ci toll parce que ba ñu ko waxee ki nga xam ne mooy adjoint xalif général Medina baay dafa jël parole topp ci moom daal dina loolu de rafetlu naa ko bu baax ndaxte ñun mag ñi guddi dañuy bëgg yore suñu kurus bu ñu julleegee dox ndànk dem doxantu ju ñëwaat kon monsieur le ministre programme boobu na nga ci taxaw waa Kaolack ñu ngi koy xaar maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp.